seen patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda mardi 10 septembre ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen fidélité si les programmes de Walf TV ñu am plaisir de vous recevoir tey si seen magazine bi monsieur Souri Kaba nekk ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur ambassadeur nekk en même temps membre du comité de pilotage parti bu bees bi nga xam ne démb lañ ko euh, samp di nouvelle responsabilité moom lañ fi dalal dara waxtaan li nga xam ne moo tukkee démb ci bi ak rencontre bi nga xam ne euh, l'ancien premier ministre Amadou Ba amal na ko ak ay ñooñam euh, monsieur di remercier ci wu bi ñu wuyu si. Dame Gueye maa ngi lay fay di leen gërëm di leen sant également ci invitation bi di nuyu téléspectateurs yu Walfadjri yëpp ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre ce soir. d'accord merci plaisir partagé Ayoba. soxna plaisir te retrouver. oui maa ngi lay euh, maa ngi lay nuyu di dalal suñu gan bi monsieur Sori Kaba bu baax di euh, nuyu sama naataango Issa di nuyu sénégalais yu ñu suivre yëpp euh, ci télévision bi ak à travers nos plateformes. Issa Tine. maa ngi lay fay bu baax xarit di nuyu suñu invité Sori Kaba di nuyu Ayoba di nuyu sénégalais yi ñu si daan ci biir réew mi ak ci bitim réew. alors comme dañoo commencé avec un retard on commence par l' du jour. actualité du jour dañ koy def en mode fast ndax tey li ñuy jàpp rek boo xam ne la république Bassirou Diomaye Faye war na ko amal euh, ca euh, Kaolack euh, ni ki ëllëg mu di Medina Baye Léona Niassène ak Léona Kaneen di ay dëkku diine yoo xam ne itam gis nañu seen taxawaay ci gàmmu gi waaye itam beneen dëkk boo xam ne war na faa dem ni ki alxamis mu di ca Tivaouane foofu la itam mu war faa amal ay ziara xadisi la loolu di luñ mën a jàpp ci information du jour bi nga xam ne nag moo ko dominé tey mooy gaal gi nga xam ne moo suux ci lu soriwul tolloog ñeenti kilomètre diggante ma Mbour fa mu suuxee euh, nee nañu nag ña ca nekkoon ci doomu aadama bari na bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne euh, moo yore woon euh, mbir yi moom li mu wax mooy 89 maanaam juróom-ñeenti juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent doomu aadama ñoo joxe woon seen xaalis pour dugg ci gaal gi mais nag ku xam immigration régulière xam des fois itam yéeg yéeg yooyu noonu mm-hmm. mën nga bañ a mën a contrôler moo tax chiffres yi di varier ku ci nekk ak nombre bi nga xam ne moom ngay joxe li liñ ci mën a jàpp mooy sa selon la mari nationale lu tolloog ñaar fukki néew ak juróom benn gisagun nañ leen donc am euh, yuñ jëkkoon a gis euh, ni ki démb euh, ci ni ki dibeer ji nii gisoon nañu ay néew waaye itam ñu daal di gisaat ni ki tey jii lu tolloog fukk ak juróom-ñaar ni ki sànq sax maa ngi jotaat euh, xibaar boo xam ne du marine nationale mais ci ay confrères yu fa nekk laa ko doon euh, jëlee ñu ne am na ñetti néew yoo xam ne for nañ leen ca ngàpparu euh, waaye nag néew yi ñu jot jël xëy na image yi mënuñu koo teg ci télé bi mhm. mais daal dinañ leen di denc ci ay armeel xam ne ma nga nekkee ca Liberté ba nekkee ca Mbour loolu itam lu ñu mën a jàpp ci mbir mi gis nañu boobu ba léegi réaction yi di jóg par rapport les autorités ñi nga xam ne ñooy amal wàllum politique gis nañu fu mel ni ONG Horizon Sans Frontières aussi ñuy réclamer deuil national ñu def ko fi. Mhm. Euh, loolu itam euh, par rapport ak jàpp ki nga xam ne euh, moo yore woon gaal googule moom itam teg nañ ko yoxo ginnaaw rek bu nga xamee ne mbir mi am na donc muy chavirement encore énième drame sax la ñuy wax xadisi la boo xam ne am na ci mbir mi accident ba amoon ni ki démb itam ca ndàngal ma jëwriñ ji ñu dénk wàllum transport yëkkati na ci ay kàddu wax itam ci cause yi par rapport explosion beeg bonbonne de gaz bi mais daal il faut qu'on insiste sur l'immigration irrégulière ndax image yi ñu gis télé bi ay néew yu ñu jël teg leen ci ab pick Euh, bariwaay gi ñu gis sax nit ñi takk ay masque loolu yëpp am na loo xam ne moom lay wane par rapport ak état bi nga xam ne ci la ñu nekk déjà ak pourquoi ndaw ñi boobu ba léegi ñu ngi gis lii di ko gis ci télé yi ci média yi fu ne te ba léegi mënaguñoo découragé pour dem euh, en Espagne xadisi la alors monsieur Sori vous êtes bien placé ak euh, contexte bi ñu di fàttali ne vous êtes l'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur xale yaa ngi dee ci géej gi jigéen yaa ngi dee immigration ba léegi du leen dissuader qu'est-ce qui explique Euh, soxna Khady d'abord kàddu wu njaal jëmee ko ci njaboot gi nga xamante ne tey tiis boobu dafa dal seen kaw di jaal également peuple sénégalais bi parce que lu métti la Issa wax na ko léegi ce son des images choquantes mmh. ba on pas envie de les montrer tellement que elles sont dures à voir te yu mel nii nag dañu ñaan suñu borom mu fiy gëj wala bu mu fi amati parce que bëgg liggéey bëgg teral sa njaboot. ba sa bakkan du ko fekkee man de jaraluma ko parce que njariñ loo fekkee. donc y a d'abord une responsabilité individuelle de chacun qui pose un acte jëm ci mbirum immigration irrégulière bien évidemment ki nga xamante ne jàppul ci dara ba di ko wutali boppam cela va de soi que dañuy joxoñ les pouvoirs publics mais phénomène la boo xam ne. pour ñu mën ko engloutir il faudrait que ñu jël ko àlla la source autrement di toll nañ tey foo xam ni waratul nekk un débat diplomatico pouvoir public mais dafa war a nekk un débat public dans l'espace public ci village yi ci quartier yi ci communes yi ak ci département yi ak région yi fu ci nekk ce débat là dafa war a wu pour des solutions durables. effectivement. parce que la problématique de la migration mënuloo ko abordé mukk bu fekkente ne tu ne prends pas en compte ce qu'offre un territoire de vie et ce que offre également un territoire d'accueil mu war a nekk France wala Espagne wala fu mu mënti doon. Mhm. parce que territoire d'accueil yooyu bul deer bi ñuy yónnee di aspirer la jeunesse su fekkoon teritoire bi ñu nekk amoon nañu fa au moins le minimum amaana loolu du am. moo tax il faudrait qu'il y ait un équilibre dans le débat des territoires c'est une question de territorialité mm-hmm. c'est une question boo xamante ne au niveau territorial dañ ko fa war di aborder mm-hmm. nit ñi am ci ay solution au niveau local mm-hmm. et c'est là où le localisme prend tout son sens buñ ko defee uniquement un débat national di ko làq ci sunu biir entre diplomate entre je ne sais pas quoi et quoi et quoi mënta dem parce que lu métti la te lii mënta continuer et on a l'habitude de dire que le désespoir mobilise d'accord booy xool désespoir bi am na lu bari yoo xamante ne tey causé ne ko ci réew mi moo tax muy gën di enflammé wu mhm. mais la faut qu'on l'arrête dafa am ay zone yoo xam ne mi ngi wax sànq ne mars ak léegi mois de mars ak léegi plus de euh, xale ñoo ñàkk seen bakkan ci lu ñu recensé mhm. pas ñi nga xam ne ils sont disparus lu yéeme la mais foofu dafa am benn action bu may bu may identifier parce que da nga ko wax léegi soxna Khady en faisant référence à mes anciennes responsabilités ñun on avait développé une approche bi ñu fiy nekk kon appelait les bureaux d'accueil d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur avec l'accompagnement de l'Union européenne ñu waroon a ubbi quatorze bureaux régionaux dans les quatorze régions du Sénégal mhm. mais dañuy war a am ay pendant au niveau de chaque territoire ak au niveau de chaque commune problématique bi ñu mën ko porte foofu en termes de sensibilisation mais en termes aussi d'identification des potentiels migrants identification boobu lu jafe lay doon moo tax li ma leer mooy hypothèses yi ñuy avancer en termes de perte en vie humaine ne sont que des hypothèses basses mais il faudrait que notre état travaille bay am des statistiques fiables mm-hmm. lu nekk lu fiable lu am solo deuxième bi nañu waajal jeunes yi à la migration Là, on pourra les canaliser, on pourra les encadrer. Parce que même le menuisier qui veut migrer, si tu n'es pas excellent dans ton domaine, soo demee tu vas chômer. d'accord foog ñu waajal la. ci côté boobu parce que dafa am ay zone yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ak napp euh, fu ci mel ni tefes gi nga xam ne fa lañ jógee sànq maa ngi gis maître Abdoulaye Tall euh, muy koñ boo xam ne bu mu miin la euh, ñu ci bare bëri li ñuy yëkkati jay kàddu mooy que ni dafa am ay zone yoo xam ne daanaka wàllum napp dafa dafa am doole trop fa la ñuy gën a faral di nemmeeku gaal yi di fa jóge par rapport ak lii di xew tey émigration irrégulière est-ce que dafa am responsabilité. ci état ci téye ndaw ñi par rapport ak fi zone yi ñuy jógee ak napp gi aussi est-ce que daf ci impacté ndax gis nañu nekk na un argument boo xam ne moom lañ doon jël